yonent yi fi jaaroon yëpp alayhim salaatu wasalaam ku ci nekk mook aw nitam ak diineem am nu amoon am nañ seen bis bi gën a rëy ci ñoom waaye ñun bis bi mooy bis bi gën a rëy ci ñun muy xaswatu badar ah, solos bis bi buñ nemee ci alquran da ciy nettali lu bare bare waaye ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rot ci lu bare bare bare bare mbindum Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar it bare ci lool ca jazbu ak ci téereem ba ñuy wax mimiya danañ ci ñëw ci kanam incha allah ah, xam ngeen ne lislaam yonent bi bi ko suñu borom tabaaraka wa taala yónnee am na mag fukki at doo ko gàddaay ñëw madina fukki at yooyu yëpp nag dañ fa dund ay jafe-jafe ñoom jullit ñi ak i mettit ñu rey ci ñoom ñii toxal leen génne ñii nangu seeni alal bi ñëwee madina nag waa ansoor dalal leen jullit ñi yokk am doole suñu borom bëgg feeñal dëgg ci kaw ay caaxaan donte yéefar yi bëgguñu ko loolu bokk na ci li waral bis bi moo tax suñu borom tabaaraka wa la day wax ci alquran ne li yuxiqa al xaqa wa yubtila al baatila walaw kariha al mujrimun ay juróom-ñett suratul anfal ah, tax na coono yéen leen fa teg biñ ñëwee dina suñu borom daal leen di jox nag ndigal jox leen fa weer ne leen nag bis ni ki tey kat fu ngeen fekkati alal ju seeni noonu di dajale wala ngeen fekk leen fenn man ngeen a jëfandikoo ci ñoom ku leen wokkati itam na ngeen ko xuri te it bu ngeen ci jubloo suñ borom moo leen di dimbaleel boppam ndax yéen kat rey nañ leen génne leen nangu seeni alal te tooñu leen da ngeen ne rek yàllaay seen borom ñoom ñu ne du fi amee uzina lillazina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir allazina uxriju min diyaarihim bi xayri xaqin illa an yaqulu rabbuna aaya 39 ak 40 suratul ji ah, solos bis bi kon liñ ci wax lu baree bari la waaye nag solos waa bis bi itam am na njariñ lool ndax waa Badar ñoo ñi gën ci jullit ñi jëlee na ci imam ahmad mu jëlee ci jaabir ibnu abdillah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen wax ne leen jibril dafa ñëw ci moom ne ko waaw yéen nu ngeen jàppee waa Badar nee na ma ne ko xanaa ñi gën ci jullit ñi jibril ne ma ñu nit day malaayka yi doon wàllu si noonu lañ leen jàppe ñi gën ci malaayka yi lañ leen jàppe kon waa badar waa badar ñu kawe lañ yoo xam ne ni ku leen di woyofal wala nga leen di doyadal danga danga da ñàkk xam-xam waaye sëñ Tuubaa mi nga xam ne yaakaaruñu lu dul moom moom de yitteem ji gënoon rey mooy mu bokk ci ahlu badar ndax bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feeñoo ci jàkk ji ci daarul xudus bi mu ko laajee loo bëgg ku ko toll bi feeñu la ànd ak ay saxaabaam nga jàkkaarloog moom mu laaj luy sa bëgg-bëgg nga ne ko bokk ci ahlu badar ku ne xam ne ne ñooñee seen daraja ak seen maqaama kenn mënu koo tagg kenn xamu ko suñu borom tabaraka wa taala bi ne ko ah loolu de faat na daal di koy wax ay daraja ak maqaama yu bari Serigne Touba sant ko ci gërëm ko ci ne yooyu yëpp yu baax waaye man daal li ma gënal mooy bokk ci ahlu badar mu ne ko kon naa ko laaj suñu borom ba ko ko laajee suñu borom tabaraka taala ne ko ah ñoom day seen jamono weesu na jamono jañ ko jëfee woon waaye nag dees na ko jaay daal di koy wax njëg yi muy lu diis lu métti lu jafe Sëriñ Tuubaa xeemee ma bokk ci ñoom tax mu jaral ko ak gëm yàlla ak jomam daal di koy nangu suñu borom teg ko natt yooyu yëpp mu daal di jaar ci ay jafe-jafe ak coono yu metti ba suñu borom mujj ko boole nag ci waa ahlu badar mu bindal boppam ne man mankat see suñu borom seedal na ma nag kenn nga ci waa ahlu badar tax na weddikat yi ku ma ci gis rek dafay tiit ñoom ñëpp dañ ma ragal weddikati yàlla yi bi anni waahidu min ahli badrin xaafa minnil jaahidu sëñ Tuubaa dellu waxaat ne bis booba day ci la saxaaba yi doon xëccoo déegi kenn ku nekk bañ sa moroom jël ko bala kenn ku nekk ci ñoom it doon gayndeeg sibi amutoon jenn aajo it lu dajeeg ab yéefar wala ay yéefar tëral leen baa ñu tëral ko waaye amu ci kenn ci ñoom koo xam ne nii dellu këram moom nekkoon na ci am xelam moo tax mu ne tanazawal mawta maa wal kullu minhum shajoha yabqi liqa aw yusraha li hubbi maahil xumami mu ne ci bis booba itam ci la sun borom yëgatee lislaam jox ko xëyba jox ko daraja ju kawe musal ko ci ak doye di ci bis booba itam ci la jamono teeyee ci ñun jullit ñi sun borom nag di ñu nangul lu waaye jëfatee ci lu baax rek mu nangul la ko fulal la ko bii xaninaa lil jinaan an xaswatin wa an hawan bihi lanaa taaba saman maha kon bis la boo xam ne nii rëyaay gi ëpp na kon nag lu mat di fàttaliku la ci ab jullit lu mat di fàttaliku la ci ab jullit kon nag képp koo xam ne nii yaa ngi woor naan koor gi dafa tàng wala koor gi daa gudd walla dafa métti wala kooru tey gii kay moom suñ bis bu tey bii ñii di dàqu koor képp koo xam ne yaa ngi wax loolu mën naa am da nga xamut badar xamoo waa ahlu badar wala da leen fàtte waaye képp koo xam ne ab jullit nga. te sa xol di dund bu xamee badar xam waa badar te fàtte woo leen lu koor métti métti ci yow mbégte nga koy def ndax ñoom de dañ ko boole woon ak cawante ay jaasi ak dëbbante ay xeej te taxut ñu dog seen koor kon nag di leen fàttaliku baax na lool ndax day dolli pas-pas di dolli pastéef di naatal tamit ab xol ci ab jullit bu ëllëgee ñu ñëwaat ci leneen loo xam ne nii dañ koy dolli ci bisu badar ngir di ko fàttaliku